الحمد لله الذي وفق أهل طاعته لأسباب رضاه واستعمل جوارحهم وبواطنهم فيما يحبه ويرضاه والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وأصحابه الحافظين ما أمرهم به من العزائم أما بعد فيا عباد الله في بعض الأحاديث أن في الجنة نهرا يسمى رجبا باسم ساركم هذا ماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن فمن صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر فاتقوا الله عباد الله وأكثروا في هذا الشهر من الصدقة والصيام وتزودوا فيه من نوافل الخير والصلاة بالليل والناس نيام وانتهزوا فرصة عمركم فكأنكم بفسيحته قد ضاق وبساطه قد انتوى وطهروا مقاصدكم على الإطلاق واعتكفوا فيه على صيام النهار وقيام الليل وشمروا لذلك عن ساق الجد الذيل فإنها أنفع ما يجده المرء في الآجلة وخصوصا في الأزمنة الفاضلة اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين صلاة ترضيك وترضى بها عنا آمين bokk yi gannaaw bu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaajëfal Cheikhuna Cheikh Ahmad Cheikhuna Cheikh Ahmadul Xadim radiyallahu anhu yal na nu ko yàlla fayal moom ki nga xam ni ab dundam lépp da koo jeexal ci xeexal lislaam ab dundam lépp daf koo jeexal ci jihaad ngir taxawal lislaam def ci bakkanam def ci alalam def ci njabootam def ci doomam dami wa ahli wa awlaadi lfidaau lahu lépp jot naa ko sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ni moo nu fi indi lii nuy défendre tey def ci léppam dem ci ba jeex ba ci ndam lii mu ci am tey mu mel ni bokk yi kon dana war a xam ni lii taxaw tey mu tuddaal mimbar tudd gàngu na ci wolof moo gën a tedd ci kaw suuf lépp lu ñuy tegu tànk di ca yéeg wala yujida toog kii ci gën a tedd tey ci kaw suuf ndax ci la sallallahu alayhi wa sallam daan taxaw di jottali risaalam nga di jottali ndigalul borom la mu ko jottale woon nit nii ci kaw kii la daan taxaw di ko jottali bi mu fi jógee ñi ko fi wuutu ci kaw kii lañ daan taxaw di ko ci jottali kon ginnaaw yàlla akub yonentam kenn rekk lañ war a tudd ci kaw kii muy ku mas a daggal lislaam bu mu gàcce ku mas a daggal lislaam bu mu gàcce wala si ne laa tudd ci kaw mimbar ku ma sa défendre l'islam def ci sa bakkan warees na la tudd ci kaw mimbar ngir nit ñi xam li nga defal ñoo ñooñu rek ñoo ko yeyoo keneen yeewu ñi ma sa dagg buumu gàccee daggal l'islam buumu gàcce nag ñi ma sa xeexal l'islam ñi ci xam Cheikhuna Ahmadul Xadima ci man ndax li ko def ku ñu ko wax nga xam ko ku fi ma sa jaar da xeexal l'islam mbooloo nga ko àndal ku fi ma sa jaar da xeexal l'islam mbooloo nga ko àndal Muhammad yonent la moo xam ku mu doon ku fi ma sa jaar xeexal islam da nga ko ànd ak mbooloo say bokk say xarit say dëkkandoo say taalibe ña la gëm ñoo ko ànd ak yow di ko xeex te nii doo wanaa loolee doon moom rek ci li ci li taarix xam ci li isla ci taarix xam taarix taarix yu njëkk yi ak yu mujj yi xamuñu jay su maanaam arme kenn nit xamuñu ko taarix xamu ko kenn nit ku taxaw jàkkaarloo ak arme ay junni junni ñoo xam ne ñoom ñëpp dañoo ngànnaayu yow kenn ni sël nga taxaw jàkkaarloo ñoom dàq leen kenn la ci la ci islam xam kenn la ci yi xam muy sëñ Ahmadul Xadim ku ca xam keneen ci taarix yu njëkk yi ak ci mujj yi ku ca xam keneen jenn jëmm ju dàqaas arme nga xam nga wax ko ba muy jóge Mbàkke baar yi di dem ca liggéey ba di jàkkaarloo yeeg noon yi ku ko topp dañ la wàññikul yaakaaru ci kenn yàlla rek la yaakaar àndul kenn ku dul ña ko doon yenu li bagaasam ña ko doon yenu li bañ demee ba am fuñ teg bagage da leen ni wàññi ko leen muy luga wuu ña ca ba ndar nar lañu yem moom dong moo dem yorul dara lu daa xalimaam ji ak daa am ji mu sama daa ji moog derati ña doon xaral yonent bi sallallahu yem maa umi daa di kay i shuhada daa am jooju rek la àndal jàkkaarloog noonu lislaam juróom ñetti at ne meŋ ci biir pënd bi ñuy séenu séenu seenu ba mu ni pël di wax la mu doon wax di def loon def te xurikuut kon kenn kooku la ci la la ci taarix xam kooku nag kon lam doon defaa dara dama bëgg ñu xam ni kooku nag mooy suñu royukaay nu benn royukaay bu dul kooku suñu bakkan dañ ko war a def ci lislaam sunu alal dañ ko war a def ci lislaam suñu njaboot dañ ko war a def ci lislaam islaam nag sëngéem na tey loolu moom na ngeen ko xam islaam sëngéem na tey ndax noon yi ko doon xeex te kun jàkkaar leen mu dàq leen ba ñu jàkkaarloog moom mu dàq leen ñooñu tey jii lañ gën a gémb yéen ñëpp maase ngeen ci xam complété bi xew tey contre l'islam ñëpp maase nañ ci xam ko ñëpp dara du seen yitte lu weesu l'islam l'islam képp a leen xatal tubaab yi noonu l'islam yi islam képp a leen xatal ñooñu nag tey jii ci tey far islam rek mooy seen yitte noonu nag dañ cee am suñ particularité bopp ndax non danoo am ñaari noon mun yoonu danoo am ñaari noon noon noon bi nga xam ni mooy noonu lislaam bi daan jàkkaarlook ak jàmbaari lislaam yi booba tey jii gën a gem ak noon bi nga xam ni yoonu lis yoonu murit tasawuf moo di noon moo ko tax a jóg moom lay xeex nun danoo mel ne ku ñaari jàmbaar yaa ñaari noon yu yu yor seen gànnaay siq yow yoroo ngànnaay ba noppi tëdd nelaw foofu lan toll école yaa ngi na xas tey ci dëkk bi ñi doon xeex lislaam seen école a ngi tasaaroo ci dëkk mi ngi gën di tasaaroo ñii xeex tarixa bi seeni seeni école mi ngi ci gën di tasaaroo noonu nag nu tëdd nelaw rek nelaw warunu nanu yeewu te jàkkaarloog noon bi def ci sun bakkan yii ak sun alal yii ak sun doom yii te njëkk ko ci sun doom yii dugal leen ci daara yi ñu jàngal leen alquran luñ ci góobee gar ko dañ leen dugal suñ doom yi ci daara ñu jàng leen alquran din wa jamii ma lahu min al asxaabi wal aal amma baadu fa yaa ibadallah qaala allahu tabaraka wa taala man kaana yuridu xarsa alaxirati nazid lahu fi xarsi wa man kaana yuridu xarsa dunya nuutihi minha wa ma lahu fi alaxirati min nasib fattaqu llaha ibadallah wazra'u li anfusikum ma taxsuduun وقدموا من العمل الصالح ما تجدون يوم يندم المقصر على ما يضيع من عمره ويفوت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت واحذروا أن تمر بكم الأزمنة الفاضلة ولا تعرفون قدرها فإن شهركم هذا أحد الأشهر الحرم التي العمل الصالح فيها عند الله يزكو ويعظم وكما يضاعف فيه جزاء الحسنات كذلك يضاعف فيه جزاء السيئات وأفضل الرغائب على الإطلاق هو كثرة الصلاة والتسليم على من صلى عليه الملك الخلاق جعلني الله وإياكم ممن إذا ذكر تذكر وإذا آنس نورا اقتبس منه ما تيسر